ban euh, selaan bii nii nii fii nii. maa ngi maa ngi lay neefee. yaa yoon bi nii rek. waaw léegi ah. hectare bi yëpp. Ah, hectare bi yëpp dañ ko mën a doxo. 14000 créé ñun eh, man da ngeen may topp damaa bëgg lu leer rek de. dil ma kaar kat waaye. gis nga courant bu bëggee courant day difficile day bëgg a dee day facile maa ko day difficile. day facile bay bëgg a dee xool nañ ko. mën na pompe mën na lii. lu TV. seen YouTube sénégalaise. da nga bëgg publicité jokkowal ak ñun lu xew TV xibaar yi wér te lu ma gis si épisode 38 bi mooy que ne Abdal li mu def saa ñaaw na trop parce que moom genre kaa bëgg jox ko lépp amul lu muy def di ko rey. mais loolu yëpp lu mu si jot pour jot si alal bi mais loolu yaakaar yaakaaruma mu sotti yaakaaruma mu jot si alal bi moom mun na peut-être mun na si jot mun na si bañ a jot tam waaw te siyaara ni muy def xale yu jigéen ñi ñaaw na trop te Umu Kalsum tam moom ak kii Umu Kalsum moom ak wujjam bi Umu Kalsum moo nekk ci dëgg waaw parce que kee lu mu ko nekk di lii lu mu ko meree mooy deewu Ayda bi te deewu ayda bi umu kalsum bu ayda li woon bu jaraatu woon mu def ko daka kaa war a def waaw parce que xale bu am 12 ans nga topp di ko tëddee daal def ko jabar ba mu toll noonu noonu loolu moom ñaaw na trop loolu moom dañ kaa war a génnee si société bi dëgg-dëgg merci jërëjëf loolu amoon pour commentaire si épisode 30 bu passé. Abel moom dafa ñàkk war ma rek ñàkk war ma rek la def foofu que jigéen bu la jëlee di la suturaal yoroo dara mu di la jàppale di jàppale ba nga toll waroo bëgg alalam rek ndax di ko sànq alalam la bëgg moom la bëgg a jël ci xale bi li jox xale bi moom la bëgg a récupérer ak alalam nekk fa dama yaakaar naa ne dafa bëgg aana moo tax ma def yi yëpp waaye fecc na kóllare ñàkk na war ma daal daal amul war ma rek daal. Eh, asalaamaaleykum lu xew TV maa ngi leen bëgg maa ngi leen charge yéen nga am jàmm. oui di wax ne film moom macha allah macha allah film bu la jaar daf mel bii moom pour man benn moom waaw moom pour man benn moom waaw yëpp ku si nekk rôle bi la jox yaa ngi koy joué mu waree waaw yaa ngi mu waree man nag moom. ci côté jigéen ñi eh, nekk ay bandi noonu man ñoom ñoom ñoom moo gën a neex quoi waaw ah, seen tur yi laay xaw sax moo tax mooy ñoom ñoom moo gën a neex film bi macha allah wax yàlla gën a tax ma bëgg film bi Sidi man maa bëgg rôle yu jox la ko nga joué ko macha allah waaw ah, fi ko jàpp yoon moom mooy loolu daal ma xam ni moom te xam na ñi tamit Sénégal ñoo xam ne film bay seetaan. film tamit boo ko seetaan del xool li nga xam si ni moo am chance nga di ko jariñu li nga xam si nekk amul chance après nga bàyyi mais bu Sénégal dañuy comme si am la wala lu naturel la quoi lenn ku ci nekk xam ne lenn li am na mais len li tamit ñu ci bañ a bu ëpp quoi ndax da nga gis sax ko jouer film ba pare à part ça nga romb ci mbedd yi sax ñu lay xool yenn bët yi te mooy loolu noonu quoi. waaw dañuy xam ne film la ñuy joué ay acteur la te tamit seen métier mooy loolu waaw mais macha allah seen film bi jaar na yoon trop trop trop trop trop trop waaw ñaa ngi ci gis seen bopp trop a dëgg yàlla ñi amul doole ak ñi nga xam ne dañ lañ tooñ te xamuñ fu koy jooyee sant yi yéen ñi ñuy gunge yéen ñu may xel ak yéen ak yéen kenn mënut a wax lépp daal. asalaamaaleykum na def ñu ci jàmm Baye man théâtre bi man lenn kese man moom ci xaw a jaaxal quoi. comme sa jigéen ñooñ di ci tux waaw parce que bu nee yeete ñoo war di yeete ci leneen mën nañ mën nañu indi beneen rôle bandi bu bokkut ak tux xam nga mën nañu indi beneen rôle bandi bu bokkut ak tux parce que tux léegi xam rek booy dañ koy seetaan yaakaar ne dëgg la di tux xam nga jigéen ñi waruñ cee newoon di tux tamit. ma amoon benn message tamit bu may jàllale peut-être euh, WhatsApp bi xaw am waxtu ñi ngi am audio yu normal loolu desin ma leer peut-être euh, dama ko yaakaar rek moom ma lay wax ne maanaam film bi tamit réussir na neex na jàll na nit ñi ñëpp ñu ngi koy seetaan di ñaan la li dal yeneen série yi mu bañ leen a dal waaw ngeen am ay saison saison wax dëgg yàlla ay saison saison maa ngi koy xaar ci yéen tam naa ci yaakaar waaw yeneen yeneen film fi jaar nag tout le temps ñoom tamit mooy loolu dañuy jouer dana neex mais fin la am. waaw maanaam fin bi du baax ndax tul temps bi ñu ko joué dañuy dem ba comme ni ñuy def nii di ray di ray di ray ray te dafa am ay acteurs de yoo xam ne tey bu ñuy teel di génn si film baaxul quoi waaw acteurs yoo xam ne bu ñuy teel di génn si film nii baaxul waaw comme si que daloon suma juumul euh, euh, ba ban filmati la euh, ñoom saa neex seen film bi laay fa tur bi wiri wiri waaw boo xoolee ñoom seen film bi li ko mu jot tax mu suux mooy ray ray yu bëri yi quoi waaw ray acteur de film yoo xam ne moom waruñu waruñu ñàkk ci film waruñu ñàkk ci film ndax tout le temps ñoom ñooy dooleel gars yi ñoo lañ mottali am na ñoo xam ne ñooy tax ñoo lañ seetaan ñoom ba ñu leen rey bëri na mais ban laalee seen acteur bi mag muy seexu naan loolu indi leen problème yu bëree bëri bëri bëri seen film dem waaw dinañ wax ñu veillé ci côté boobu noonu. waaw ay jàmbaar ngeen ay liggéeykat lan mais film série yi nii nii nii tout le temps comme yii nii moom ay rey mën na ci am mais dañuy xool fi ñuy coxati bu baax a baax côté yi ñuy rey waaw période bii nii ku si mel ne Jules César kooku ku a dund la ku war a dund la ku war a yàggal film bi ndax fi mu ne nii ñu bëree bëree bëri bo xoolee daloon seexu naa ci wiir wiir moom moo leen dal foofu noonu quoi waaw. boo xoolee fi ñu toll tey boo ko rëccoon rek moom moom ba lu ko empêché wala moom lu ko wala mu dee ci suñ bi rek moo loolu day bunt yu bëri yoo xam ni ma yaakaar rek laay waxee nag mën na fët mën na fët ndax daa am acteur film bi yoo xam ne danañ ci bàyyi danañ ci bàyyi wala bokk nañoo war a dee ci fin film ba comme ni koy tubaab di faral defee waaw chef de bande dëgg moom day dee ci fin ba xeex cooki fin ba daal ci la war a dee mais bu teelee dee rek mooy loolu noonu. mais série bi moom macha allah kontaan nañ ci ñi ci bëggee acteurs yi li seen rôle yi ñuy joué nañ ko kontaan barki Seydina Mohamed dama kontaan trop duma ko tardé chaque chaque jeudi wala dimanche duma ko tardé billaay suma ma ko tardé bu dee dama lu ma impé sax ba ma ko fat fat damay dugg YouTube ma téléchargé ko billaay seen interview yi seen lépp man duma ma bàyyi dara lépp laay seetaan du sax seetaan film bi dong ñoom ku ci am. fu la invité yi wala seen kii yëpp duma koy seetaan dama leen ñu bëggee di leen safoo macha allah. waaw moo wax tuuti si épisode 38 bi ça a été bien passé nee na trop te am na saas uti defati nañ ñombe laa ko mën a waxatee parce que si ñombe lañ dëkk wallahi chaque jour ñu ngi bégloo waa àdduna di leen jàngal lu bari bari di leen teg si yoon macha allah ñu ngi doxalee noonu la nu mu vraiment lu mu doxalee ci film bi baax na daal comme ni ko nit ñi di waxee rek ñëpp suñu meloon ni moom àdduna bi macha allah jàmm rek fi bari parce que lii mooy dëgg ku deful yoon moom dañ laa war a teg si yoon waaw loolu moom mooy dëgg moom wax dëgg si yàlla keroog avant may avant ñu xam ko waray saan dama ne gaay naan ma waaw Zil moo ko rey ma ne non du Raysaan Zil boo seetee si film bi nga xam ni Zil euh, du Raysaan quoi parce que dëgg la Zane teg na ko lu nekk mais moom xam na fum mu jaar ak Zane daal <laughs> lu bari xam na ko si moo tax dëgg la te am te ku am fulla la si li muy see tamit ku mën a doxaroolam la kaxaama billaay vraiment man dama lay félicité bu baax a baax di leen encouragé rek dana fi nga jàpp foofu la wallaahi. ñu ngi kii bu baax yal na leen yàlla gën jàppale rek taxaw leen macha allah ñu kontaan bu baax si ñoom billaay lu xew TV seen YouTube sénégalaise da nga bëgg publicité jokkool ak ñun lu xew TV xibaar yi wér te wóor